Guinée là, sur sur la Guinée j'invite la CEDEAO à intervenir à vraiment s'immiscer vraiment ce que c'est le concert des nations de l'Afrique de l'Ouest il faut que rôle boobu ñu joué ko avant qu'il y ait du carnage là-bas parce que après troisième mandat c'est révolu dans le monde il faut le dire tel quel wax ko ci plateau invité nag ñi nga xam ne sont de la mouvance présidentielle ñëw toog fi wax ko pourtant ils le disent dans les salons bien feutrés ah waaw lu ma ma ne la waaw mouvance présidentielle dama ne la mouvance présidentielle bii ce qui se passe en Guinée il le condamne dans les salons il n'ose pas le dire ici man j'ose le venir le dire ici. mooy les les hautes autorités yi nga xam ne ñoom ñoo wër président. dégg loolu li ma la wax ma ne sans exception. ñoom ñëpp amul kenn ku mën a xool li li xew Guinée mu koy mu koy daan c'est bon. c'est pas possible quand même il faut quand même qu'on soit sérieux dans le monde di wax dëgg ce qui se passe au euh, euh, en Guinée. tey ñu ñëw entouré sa sa principal opposant teg ay blindé këram nee du génn commencé rey ay nit génne quatre bulletins quatre euh, euh, nu mu tànkoor bureau de vote rek sur 38 nga ne yaa gagné jaay ko doole ba pare na je suis ouvert au dialogue mais c'est une de qui se moque-t-on dans ce pays. troisième mandat mënatul jàll mënatul jàll Côte d'Ivoire su ma xuusee egg foofu reyante bi commencé na reyante bi commencé na. lu ko jar nguur daf ko jar demal dem bu rafet parce que Sénégal yi wóolu nañ la Guinée wóolu nañ la euh, Mali wóolu nañ la Côte d'Ivoire wóolu nañ la bee nga ni man pare na c'est pas parce que nga ni ki ma fi tegoon décédé na yàlla moo jël damay dellu si waat en violation de la loi fondamentale moo tax ça part en couille. xam nga tey li wóor ba wóor mooy euh, entente politique bi amoon sa diggante président amatul. rupture du lien de confiance am na te déclaration yi ngay def nii euh, du favoriser euh, rapidement euh, un rabibochage lan nga bëgg a wax président. Euh, lu ma bëgg a wax président c'est très simple je n'ai aucun problème avec lui mm-hmm. xam nga lu ma bëgg wax loolu parce que xam naa ni il m'a toujours dans le cœur je vous dire pourquoi. Mm-hmm. wolof njaay neen ci nguur mën nañ la laal sans jege la sans laal la c'est-à-dire de loin le président de la république c'est mon grand frère parce que sept ans moo nekk entre nous fekkee loyauté rek je suis un homme loyal mais dans la vérité j'ai toujours été véridique avec lui du bii dossier rek y a d'autres dossiers du ma dugg si digg bi mais mi ngi may seetaan xam naa dégg na li may wax trois ministres lui a conseillé quelque chose moi je suis venu j'ai tout mis à plat ne ko président lii baaxul ci yow bu ko def. lañ ko conseillé woon. dama ne li may wax lu leer la de man du ma fooyee président de la République euh, Macky Sall c'est mon grand frère c'est mon président boobu ma jógee dama ko ne président lii baaxul bu ko def euh, il a fini par me donner raison jàmm ne ñooy te yàlla xam na ni bu fekkoon position bee bi la toppoon ñële quel gros problème dans ce c'est moi qui ai éteint ça xam na li may wax ñi nekkoon ci dossier boobu xam na li may wax ces ministre la xam na li ñuy wax man ci man je suis là pour le conseiller pour dans le bon sens mais nekk foofu di may lancer message président également son entourage là il n'a qu'à faire très attention parce que euh, dafa am yoo xam ni je citais même euh, un grand euh, homme politique du Sénégal fii mu ne ñooñu di ñëw indi xaw ma gâteau ñu yéex ci jot di di di wax président dugal fii defal fii dóoral kii mais man bu fekkee des faucons se se braquent contre moi et font carrière contre moi man je suis devenu quelqu'un sans eux ba may xam président de la République j'étais candidat à la présidentielle en 2012 wala fàttewu ko je l'ai retiré président Macky Sall moo ma woo du keneen je ne connais personne d'autre c'est lui qui m'a entendu au grand jury avec Mamoudou Ibra Kane qui m'applaudissait dans l'émission dégluwaatal émission bi c'était en novembre 2011 mu ne ma ñëwal ànd ak man Macky 2012 ma ñëw ànd ak moom bàyyi lépp donc tey ñii di ko conseil yëpp parce que bu demee peut-être seen seen cere toy di ko conseiller demal demal defal troisième defal moi je suis contre il peut partir beau en organisant de très bien son départ di duggaat Sénégal di génn nu mu ko neexee mais ces gens xam ni ils ne sont rien boo demee seen mbuur bii ñu bokk sax nekk directeur de cabinet politique mënuñu fa dajale ñaari nit te politique mooy mbooloo man président Macky Sall dugg na Sénégal yëpp xam na li ma am fu ma amul xam na ko et je me suis battu pour lui depuis boobu ba léegi musuma ko laaj dërëm je suis pas quelqu'un qui va lui de l'argent je l'ai aidé avec mon argent j'ai travaillé également. da nga jëlee xaalis non non pas xaalis dana la politiquement laa wax ma xaalis. Mm-hmm. man je ne joue pas avec l'argent nee naa la je me suis appauvri à dem dikk j'ai même des crédits bancaires. non yëgale ci sa message. non dama lay wax pour je ne suis pas quelqu'un boo xam ni. Euh, un caméléon quoi je dis au président de la République ne pas écouter ces gens qui veulent le mettre dans une situation boo xam ne sénégalais yëpp sont contre un troisième mandat